te ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi nga xam ne yéenay safoo chaîne bii di Buzz moom mi nga xam ni moo di Alpha Omar saw daal dina yëkkati ay kàddoom jamono di nga toll nii la ci ginnaaw bi nga xamee daal dina jot ab plainte ci sax tax na jamono Alpha Omar Sow mi daal di yuuxu bu baax a baax xam le du nong mukk du noppi jëmee ci injustice bi nga xam ni ci mim réew di Sénégal jamono gii ñoom ñu ngi koy dund bu baax a baax ba tax na mu daal di le moom Alpha Omar saw daal dina jot ak plainte bi nga xam ni kii di yaay moo ko daal di jox ne xamal ko commissariat bu yëmbal ñoo ko xaalis yëpp jox mu nekk acte bi nga xam ni lu daal di la ba tax na Alpha Omar Sow moom responsable politique foro fa fecce yëmbal nekk membre coalition takku wàllu daal ne xam la ci jamono gi ñu toll nii ñoom ne dañ kaa jébbal ak plainte mu nekk plainte bi nga xam ni xamagul benn yoon lan moo waral boobu le plainte waaye nag lu mu nda am am mu ngi daal di xamle ci benn entretien bi nga xam ni doon naka amal ci ab ñi ëtt ate yi di wéetur presse Afrique mu daal di xamle moom Alpha daal di ne ne xamagul benn yoon loolee plainte li ñu lu mel moom nag Alpha nekk na ak fonction fonctionnaire foofee ca aéroport bu Blaise international Blaise Diagne daal di xam ne jamono guñ toll nii daal dina jël ak ndogal daal di gi ginnaaw bi nga xamee kii di yaayam da koy jox ak plainte mu daal dina xam xamal ko moom yaayam daal dina ko ñenn ñaar ak policier yu jógee foofee nga xam ne moo di commissariat bu yëmbal ñu daal di ñëw ko daal ko jox boobu la plainte foofee ca këram waaye nag lu munta am ba am moom Alpha Omar daal di informé ab xibaar jëmee ci ab communiqué bi nga xam ni jamono daal na koy def mu daal di xam ne nekkoon foofu nga xam ni moo di aéroport waaye nekk ci jamono gi nga xam ni moo di ci liggéeyam mu nekk mbir yi nga xam ne lu daal di la waaye nag daal dina xamle bu baax a baax mu ngi xamal sénégalais yi le di xamle bu baax a baax lu le mel xam lu amul benn yoon xamle lii moo waral boobulee plainte waaye lu ci mënta am ba am daal di xamle moom nag gëm na ne ak politique conviction politique am engagement citoyen am mun ne loolee tax na jamono guñ toll ni ak idées yi nga xam ni saa su ne ak mu nekk idée de valeur yi nga xam ne da koy défendre jëme ko ci li jëm ci wàllum éthique ak liberté d'expression ba tax na jamono guñ toll ni mën na ne commencement ba fin du am dara li nga xam ne dina ko taxee mu def li nga xam ne mu jëm ci wàllum leader politique am waaye mu jëm ci li jëm ci ba tax na jamono guñ toll ni day xamle bu baax baax ci dina wéyal di gëm di ba jàppale baax ki nga xam moo di Doudou Ka waaye tamit ak engagement bi nga amee xamee amee na ko ci coalition bi di wéy takku wàllu ci loolee tax mu daal di xamle na ci ki xam moo nekk ci bopp ba lit bopp ba di wéy turu xam moo di Alpha Omar neex ba mu neex mu donc mu daal di noppi jëmee ci injustice bi nga xam ni jamono gi ñu toll ni ci Sénégal moom lañ daal di jàkkaarloo ci loolee sax Alpha Omar di xamle ba baax a baax mun nañ ne li nga xam ni moom lañ gis mu nekk justice bi nga xam ni dafa war dafa war a tëddee justice bu équitable waaye tamit nekk justice bi nga xam ni justice bu Euh, bu ak applicable lay daal di doon waaye nag mun nañ ne ci nit nekk bi nga xam ne juste bi nga xam ne amul xaj ak seen ci kenn ci ñoom ñi le ak mun ta doon ndax kat loola la ñuy wax démocrate waaye jamono guñ toll nii dafa daal di gis démocrate mu ngi commencé di noppalu bu baax a baax ak ci li nga xam ne la ñu woote liberté d'expression waaye nag ci engagement politique bi nga xam ni moom Alpha daan na koy amle da xam daan na ko am daan ne xamle bu baax a baax jamono guñ toll ay idéem ak jëm ci wàllum politique ak lu nu mel menace ak lu nu mënta mel du ci société bi du tax benn yoon mu daal di noppi ça dépend ci daal di xamle bu baax a baax moom Alpha Omar daal di xamle ni jamono guñ toll yi mu ngi assuré bu baax a baax jëmee ci fi nga xam ne moo di commissariat boobu le dina daal di wuyu li nga xam ne moo jëm ci convocation bi jëm ca moom ba tax na muy jamono guñ toll nii muy daal di rappelé jëmee ci ku munta doon daal di xamle kenn du tee mu noppi benn yoon jëmee ci combat bi nga xam ni moom la mën a ngir Sénégal nekk Sénégal bu mucc ay waaye tamit ci nekk li nga xam ni moo di Sénégal bi nga xam ne dafay am jëmee ci ay droit ñu respecté kenn ku nekk ci ku mun a doon ci askanu Sénégal gile ba tax na jamono guñ toon ni kon Alpha amul benn yoon gi nga xam ni dina xam xamle dina deltu ginnaaw ci combat bi nga xam ne amee na ko ci langue politique bi le waaye amee na ko ci gis-gisam waaye amee na ko ci ay conviction lu ci munta am ba am dinañ leen di dikkaatal saa su ne bu lu tukkeewaat ci boobu leen plainte jëmee ca moom ginnaaw ba pare bu leen di fàttee abonné aimer partager commentaire like ndakar saa su ne loolu dina nekk li nga xam ni luñ daal di jàppale la salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa